wa barakaatu mbokk yi gannaaw ba nu sante suñu boroom subhaanahu wa taala julli ci ab yonentam Mustafa sallallahu alayhi wa sallam di sant asayxul xadim di ñaanal Cheikh Muhammadul muntaha suñu borom dëgëral ko te kartanal ko te wéral ko te defal ko mboolem xulafaaw yi nga xam ne ñoo wuutu mag ñi fu fi mën a ci réew mi mbokk yi del siwaat nañ ci jotaay bi nga xam ne nañ ko ànd ak yéen muy yóbbu suba ci seen télévision bi nga xamante ni mooy Mouride TV ba tey rek mbokk yi ñu ngi ci njàngaleem sayxul xadim nafaana allahu bi barakaati sirri ismihi mu wax ne nag comme ñeenti noonu yooyu te mooy bakkan ak bànneex saytaane ak àddina kenn ku nekk ci ñoom ñooñu dafa am kaso boo xamante ni ci lañ koy mën a tëje waaye nag mu am ngànnaay loo xamante ni lu ñu xam la mu ne kon jël leen leen ngeen dugal leen leen ci biir kaso yi damm li nga xamante ni mooy seen ngànnaay su boobaa ngeen mën a mucc ci ñoom moo tax mu wax ni lil kulli sijnun wa silaaxun yu'lamu fa adxilu wa kadiru fa taslamu waaw ndax xam ngeen ni mbokk yi am noon boo xamante ni danga di jëflante ak moom mu am ngànnaay loo xamante ni moom la yor ngir bëgg la cee faagagal waaye yow tam nga am kaso boo xamante ni mën nga ko faa tëje saa yoo ko jàppee dugal ko ci biir kaso bi dal di koy tëj dam mu ngànnaay li mu yoroon su boobaa mën ngaa mucc ci moom kon euh, noonu yooyu benn bu nekk ci ñoom am na kaso bu koy tëjee waaye am na nag ngànnaay lu mu yor loo xamante ni bu la ci jekkoo rek su boobaa faagaagal la kon da ngay fexe ba jël ngànnaay loolu nga xamante ni moom la yor nga damm ko waaye jël ko moom ci boppam dugal ko ci biir kaso boobu tëj ko su boobaa nga mën a mucc ci moom moo tax mu ni fa nafsu bil juu'i tawil tusjanu wa ma laha qaydun siwaahu bakkan moom benn kaso rek la am nga xamante ni moom rek ci lañ ko mën a tëje waaye amaatul benn jéng boo xamante ni mën na koo téye lenn lu ko mën a téye moom bakkan amut lu dul benn kaso rek nga xamante ni ci nga ko mën a tëjee loolu mooy lan ab xiif waaw xiif bu yàgg rek mooy li nga xamante ni moom nga mën a tëjee bakkan waaw ndax regg moom ku ko def rek daal di bajantu wax nañ ne loolu suñ borom subhaanahu wa taala bi mu bindee bakkan daf ko ni bakkan yow a man nee na bàkkan ni ko yow a yow mën a man suñu borom mbugal ko ci ay xeeti mbugal yu méttee génne ko ni ko bàkkan yow a kan mën a man munu ko yow yow mën a man suñu borom mbugal ko ci xeeti mbugali sawara mbugal yu méttee métti yu tara tara tara tara tar génne ko bakkan yow a kan mën a man munu ko yow a yow man suñu borom nag daal di koy xiifal bi mu ko xiifalee ab diir daal koy génne bakkan yow a kan mën a man munu ko yoway buur bu màgg bu tedd bi man maay sa jaam bu suufee bu doyade bi te gis ni kon bakkan mbokk yi lenn dong dong dong dong ci lañ ko mën a tëje mooy lan ab xiif waaye amaatul nag leneen loo xamante ni mënees na ko ci faagaagal moom bakkan du xiif bu yàgg waaye nag ama silaahu allasi xattamnahu bihil mutiihu min udan fashibahu waaw moom nag ngànnaay li nga xamante ni moom la yor moom bakkan nga xamante ni moom lay tere di dox diggante ak ki nga xamante ni mooy aji topi yalla ci mu ci mu top yalla moy lan reg waaw bakkan mom mbokk yi sa yo xamantene ni reg na rek su boba kenn mënta dox digëntem ak euh mu duggal la ci li nga xamantene moy ab safar waaw sa yu regge rek su boba duggal la ci safar ndax su regge lolu moy ngannay li nga xamantene mom la lay mom lay mom mom la yor dox sa digënté nak ci li nga xamantene moy moy njub ga ndax dañ koy sax wax Eh, ku reg rek dal di bajantu waaw reg reg la yombul reg reg la yombul lolou motax kon ñi nga xamanteni ñoy nit yi tasawuf dañ daan yar seen talib yi nga xamanteni ñom lañu bëgg yégué ci li nga xamanteni moy mooy ab xiif ngir lan ñu mëna a not li nga xamanteni moy seen bakkan su defee àdduna nak moom itam kaso bi nga xamanteni mom lañ ko mëna a moy ak daru waye beru go xamne nak day tegu ci kaw li nga xamanteni moy xam-xam waye xam-xam bo xamanteni dang ko nga koy jëfe ngir jëmmi suñu borom mi nga xamanteni mo joxe ak dégg moo tax mu wax ni wasijnu dunyan huslatun bil xilmi wa ammalin li wajhi mutil fahmi kasso bi nga xamanteni moy kasso kaso nga xamanteni mom lañ ko mëna a moy beru waye beru go xamne nak day tegu ci kaw xam-xam waye xam-xam bo xamni dang koy jëfe ngir jëm yàlla mi nga xamanteni ni moo joxe ak dégg su defe nag ngànnaay li nga xamanteni moom àddina ci lay alage ki nga xamanteni ni mooy nit ki mooy lan ak jaxasoo jaxasoo goo xamanteni amut njëriñ ma tax mu ni ama huwa ladi bihi tubit fa huwa al fi xayri l mufid jaxasoo goo xamanteni moom amul benn njariñ amul amul njariñ moom saa yoo xamanteni am na rek su boobaa kon euh, bakkan tëwugoo ko su boobaa tëwugoo li nga xamante ni mooy sa bakkan su defee seytaane itam moom itam euh, kaso bi nga xamante ni moom nga ko mën a tëjee euh, kaso bi nga ko mën a tëjee ci li amul benn benn benn benn wuute mooy tudd yàlla yàlla mi nga xamante ni mooy jàmmalaa koñ bi moo la sëñ bi wax ni wasit ñu seytaane bi laa xilaafi sigrul ilaa imaanixil muhaafi saytaane moom benn kaso rek la am boo xamante ni moom lañ ko mën a tëjee te mooy tudd yàlla tudd yàlla rek kon saa yoo xamante ni bëgg ngaa taqaliku ak ki nga xamante ni mooy saytaane moom del tudd yàlla subhanahu wa taala lu bari sa gémmañ moom bu mu selaw ci li nga xamante ni mooy tudd yàlla ama silaahu alladi yaduul bihi mutian fa huwa alxuful waaw moom nag ngannaay li nga xamante ni moom la yor te ci lay agge ci ki nga xamanteni moy aji top yalla gi dox diggante ak mom ba du mën a ak ba du mën a topp yàlla ak càggante sa yo xamanteni sagan nga ci tuddu yalla rek su boobaa moom setan jekku na la waye sa yo xamanteni bëgg nga ko bëgg nga kaa bëgg nga du dox sa ak sa borom su boobaa fo tollu del tuddu sa borom subhanahu wa taala jëm ci jëm ci mom soo ko defee rek su boobaa mom amut lenn lo xamanteni ni mën na la koo mën na mën na su defé nak banex moom itam kasoom mooy noppi ci lépp loo xamante ni njariñ nekku ca waaw lépp loo xamante ni njariñ nekku ca su boobaa nga noppi ca wa sijnu lil hawa sukuutun ama lam yakuba faidatin wa niama waaw bànneex moom li nga xamante ni mooy kasoom mooy noppi ci lépp loo xamante ni amul njariñ lépp lu amul njariñ rek su boobaa noppi ca waaye nag ama silaahu alladi bihi yadul saxsan fakatatul kalaami fi lfudul waaw ngannaay li nga xamante ne nag moom ci lay mën a songe àgg ci ki nga xamante ni mooy jëmm ji dox diggante ak boromam mooy wax ju bari joo xamante ni amul benn njariñ waaw waxi caaxaan waxi mbóorantu wax yoo xamante ni amul benn sens amul benn solo ah su boobaa loolu kon mooy li nga xamante ni ci la seytaane di jaar ba mën a dox sa diggante ak la nga xamante ni mooy yoon bu dëgg-dëgg mbokk yi kon xam naa foofu la ñuy taxawlu ci yóbbal bi jox leen digg incha allah taala ci beneen yóbbal seen mbokk Mahmoudane Ndiaye doon fi ci Touba. li gën ci noonu yàlla ñu suñu borom dafa te dëppale ko lu nu gënal wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.